fi leen amee internet yi ñuy bàyyi xel si différentes plateformes yi tey nag gis la distribution de ndogu yi nga xam ne moom la actrices yi yi nga xam ne ñoo bokk ci Sénégal di def liggéey bu am solo di ko nga xam ne ñoo ko soxla ndax weeru koor dafa nekk weer boo xam ne ñëw nii ñi nga xam ne ñoo bokk ay doomu ndey xàccandoo dóorandoo bokk ci association si def nga xam ne mooy xeet gërëm dimbale ñi nga xam ne ñoo nekk xale yi ñoom nekk ñu toog ci dañuy joxe ndogu day fii ci Dakar woote na ci rond-point Yoff ñu toog nii Dieyna Ba xam nañ ko bu baax ci Sénégal mu doon artiste bi def am solo ci Ba maa ngi jaar maa ngi lay fay bu baax mon frère di la baalu ak bu baax a baax di baalu ñëpp ak di la remercier aussi bu baax macha allah Dieyna maa ngi wax ngeen def ay services yu wax loolu xam ne ci ndimbal lay dox waaye rawatina ci xale waaw euh, comme li ma lay wax rek euh, mbooloo mooy doole te ñoom bébés yi dañoo nekk nit ñoo xamante ne samay sœur lañ dañoo déggoo te nit ñu baax lañu wax dëgg na yàlla muy bébé di kumba di kiyaa donc ñu toog benn jour di waxtaan ñu ne pourquoi pas ñu créer benn groupe boo xamante ne ñun ñii nii di ànd créer bi dimbali nit ñi parce que nit ñi dañu am xolu dimbali nit ñi te bëgg nañ jëlee li fi ne ci réew mi mais donte amuñu doole bu baax ñu créer ko yàlla def ñu réussir ko mois de décembre ñu def ko koor ñëw mooy mois bi nga xamante moo gën a sacré defe naa ci mois yi ci jullit yi li ñu am te pourquoi pas ñu def social aussi donc moo waral lii quoi Euh, li li li ko waral mooy da ngeen a doon ay xarit. Uh-huh. ak seen bopp yoo xam ne boo xam ne moo tax ngeen def li ñu mel. bu euh, ngeen jógee ci lii ci lan ngeen doon bu ñu jógee dañuy defar ñu ngi defar ñu instant yi bu ñu paree dañuy ñi nga xamante ne ndogu fekk na leen ci yoon te amuñu lu ñu ndogoo wax dëgg na yàlla mais lii du yem fii en fait def nañ ko décembre def ko ko yeneen ak yeneen yeneen di ñëw incha yàlla ñu may doole fekkee ak tal lañ. lan moo tax ngeen jël association comme li nga wax sànq rek xam nga dimbali jàppale di joxe. est-ce que yomboon na li ngeen teg parce que ànd bu jigéen yombul gis nañ ñu bëri dañ ciy def ay genre discours yu mel nii mais souvent lu koy testé waaw boo xoolee ñun ñëpp ñuy ànd âge wute na ñun ñëpp dañoo magante lu bari bari bari bari defe naa loolu moo tax ñu mën a ànd te ñu fi nekk yëpp ay yaay lañ. te defe naa boo xasee ba nekk yaay dina am benn comportement di ko am benn maturité bi ngay am en fait donc tamit dimbali moo ñu a jug di jàppale néew di doole moo tax mënuñu xuloo parce que lii bu jeexee après ku ci nekk da dell dellu sa éducation ànduñu euh, li ngeen baax kilifa yi jàpp waaw état bi rawatina li nga xam ne euh, wax rek comme mel nii social yombul ndax alal ci xol la seex donc nañ ñu jéem a jàppale am ay structure yu ñu teg wala ay affaires yoo xamante ne ñun tey suu bëggee def yu mel nii dañuy dem foofu noonu par exemple déposer suñu lettre ñu financé ñu ñu mën a dolli ci loolu noonu plus lu ñu am pour mun a def lu ñu bëgg a def mm-hmm. te defe naa président bu bees bi dina ko def Mm, macha allah ñu nekkoon ci période bu tàngee période xam ne may jàmm am na yow nga jël say propre responsabilité euh, sa action bu si métti woon na kay parce que man bëri naa ak ay connaissance yoo xamante ni ci parti beneen bi lañ nekk donc ñoom ñëpp yónnee nañ ma ay message wax ma ci n'importe quoi ah mais comme li ma lay wax rek bien sûr wax comme li ma la wax rek parce que am nañu bëri yaakaaruñu woon ne lii dina aboutir quoi pour wax dëgg ndax boo bett na leen bett boo xamante ni mënuñu ko woon yaakaar du ko ñu ñu ma doon na yàq sa carrière def nga lii def laa def lii mais comme man tey son bi bi ma koy def tàgguma ci kenn en fait dama ko def parce que dama ko sentir def aw ma ci woon benn regret te man gëmoon naa ne lii dinañ ci génn ak jàmm. Mm-hmm. bi ñu koy def amul lu mu la yàqal boobu bi nga yàkkaluma dara oh, yàkkaluma dara abaar mere mere woon nañ ma mais xam naa dinañ jiif parce que xam nañu kii moo baax <laughs> lan la motivé ba nga woy ñi nga xam ne ñooy patriote yi rawatina Ousmane Sonko waaw comme man tey artiste laa te am naa sama voix peut-être tey su ma amee mënuma fëgg bunt yëpp wax ak nit ñi mais tey su ma defee son ñëpp dinañ ma déglu te xam ne lii kii li muy wax ni ci xol la jóge donc bi ñu président Ousmane ak Diomaye dama kontaan noonu trop trop trop may suivre affaire yi yéen maa ngi leen si seen page laa ko doon si tànnee donc ma kontaan ma ne tey mënumaa tëdd si lal te defuma dara. waaju ma ko ma dugg studio. Bril defar son bi ñu defar son bi enregistré ko ñu xëy laa ne ma am ci côté nañ ay retours yu positif franchement patriote yi fépp ku nit nekk ci àdduna bi woo nga ma téléphone message yu ma répondre sax mu ëpp man tey ma répondre sama avocat kontaan président kontaan. ñoom ñaar ñëpp wax dëgg fa neex yàlla kontaanoon nañ trop mm-hmm. trop. Mm-hmm. gis nga tey passation de service bi nga de la république le président sortant di Macky Sall defal na ko ki nga xam ne eh, euh, maa ngi fa di kontaan trop trop trop trop trop wax dëgg neex yàlla parce que àdduna tamit nii la xam nga tey. ok ok li tax nga ànd ak moom mooy da nga gis ne yéen ñaar bokk yoonu yoonu kaay bokk concept moo taxoon nga euh, am si ñoom parce que nee nañ Ousmane dafa teg bët bi Diomaye nii Diomaye laa Ousmane moo wax ñu wax. loolu yëpp peut noonu lañ mel xam nga am na nit moom am na noo xam ne boo melee noonu rek yow da nga yaakaar loo gis noonu lay mel jo som Diomaye ku xam na ni dafa fan Sonko daf koo bëgg moom et c'est très normal Sonko di ko accompagner parce que Sonko fépp fu mu daan dem da ko doon accompagner te tey buñ fi tegee président Diomaye Sonko moo tax est-ce que projet bi la projet bi lay continuer te Ousmane Sonko moom li lii nii moo ko gënal le fait que Diomaye falu nii moo ko gënal ndax dina ko may temps moom mu mun a préparer bu baax a baax bu ñëwaat mu xam li muy def ñiy wax loolu noonu nañ dem toog parce que kii du workat bu fekkee workat la woon du ko tànn ñoom euh, Guy Marius Sagna ñu ngi woon fii ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ko doon xeexal mu bàyyi leen fal jom choisir jomaay moom moo ko xam. waaw mais bi ñu déggee yenn patriotes yi ci mel ni activiste wala influenceurs yi di saañoo ñenn a tax xibaar dox naan toog ñuy dox ci activiste lu yomb a wax. ah <laughs> peut être. ñoom dañu doon toog ñuy dox ñenn activiste dañu doon dox. Ah, <laughs> ci wax <laughs> parce que artiste samay xarit lañ mënu ci wax mais bon. man daal xam naa ni kenn fayu ma man. ok waaw. non man kenn fayu ma man man kenn fayu ma. Mm-hmm. Mm-hmm. sama musique laa am ak samay business. bi mm-hmm. ñu fàttali ko moom dañ ci waxtaan. laay soog nekk ci nekkoon gis nañ ne papa baax la ñu xawal sa relation moo sama papa la Clédor sama papa la mooy sama deuxième papa à ki ma jur mooy sama deuxième papa ndax daf ma bëgg yërëm ma ba pare xam sama place teg ma sama place boobu dama koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér yaram ak ay doomam parce que nit ku baax la te dafa am njëriñ man amalu ma man dong jëriñ ci réew mi de ndax nit ñuy jàppale noonu lañ baree te nit ñi xamuñu ko dafa mérité na ñu delloo ko njukkal mérité na ñu rendre ko hommage bu baax a baax a baax a baax parce que nit ku mel ni moom yombul te ku ne gis na li mu li mu def ci affaire bi liggéey na ci quoi ma koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér gu yaram bu man nii li ne sama xol mu mën ko def ci man parce que def na ci man. macha allah li ñu ne ñu doomi Kolda la ñu bëgg ci mhm. bien sûr incha ñoo ngi waajal ay affaires yu bëri yoo xam ne ku ci nekk en fait ci quatorze région yi yëpp dinañ fa jéem a dem pour xool luñ ci mën a def surtout man Kolda bi ma def comme li nga wax di ko ndamoo di ko tiitaroo mais salminawoon ko mo ƴiwonaa seeɗa min mbi ko noon merci. non non non man je suis pas d'accord parce que man moom man moom man moom polygame non non non attention non non non non non non mënoo gëm mënoo gëm laa comprendre non non non non mais nag. mais ku ci nekk non ku ci nekk ak li la yàlla jag kii nii euh, parce que moom loolu la ko yàlla jagleel yàlla dimbali na ko mu mu am ñaari jabar mais mais man si ñëw ma lool mukk dama fiir ba dama dof merci